asalaamaaleykum mbokk yi xaritu Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm namoon nañ leen nag bu baax a baax a baax tey nag seen émission nekk ni jigéen ñëwaat na tey àjjuma ji xam ngeen ñu fay demee saa su nekk ci biir plateau bi ci biir kër gi dañ koy defee entre ah. ma dalal nag euh, sama naataango bi may bokkal émission bi Adja Adja nuyu naa la. Euh, waaw maa lay fay bu baax. xam nga sa chef bu baax. waaw gis naa sa bos te fi jaar tamit xam loolu dafa neex. <laughs> moom moo fi jaar tey maa ngi leen di nuyu bu baax baax internet yu Sénégal TV di leen bëggee amaat naa mbégte ñëwaat seen biir émission nekk ñu jigéen tey ñu teewaat nag àjjuma bu ne comme ni muy demee Eva tey yow yaa moome tey nag lan la ñuy waxtaanee yow laa koy laaj. Euh, li ñuy waxtaane nag ay jaa tey mooy set hmm. set si jigéen hmm. lu am solo hmm. waaw ci loolu nag euh, ma bàyyi la nga dalal suñu invité waaw euh, xam nga invité bi moom dafay neex a dalal ndax mooy borom gore uh-huh. ah borom ñetti nuyoo yi ma daf may neex ma dalal ko ci biir plateau bi neex may ñu ñetti nuyoo yi waaw dafa ñu may sax ummi umi ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal sa biir plateau jërëjëf kontaan naa ci invitation bi ngeen invité hmm. nii maa ngi leen di nuyu di nuyu international eh, Sénégal TV yëpp ya, di leen ne affaire bi nag fii la ci biir nekk nu jigéen hmm. waaw dara du yomb tey tey dara du yomb émission bi def ba si Sénégal TV <laughs> waaw dëgg mooy sa nekk nu jigéen hmm. waaw Adja comme ni ma ko annoncé woon sànq rek set la ñuy ñëw waxtaane te dañoo yaakaar ne set ak jigéen ñoo ànd ah Adja loolu jàngat lañ ko mën a set ak jigéen ñoo ànd mais set dañ koy setul taaw rek ci nit en général pour bañ a dugg ci kenn parce que góor bu setul tam nekku la dëkkal jigéen bu setul moom musiba la mais góor bu setul tam nekku la dëkkal ba tax rek ah neexul de yow ya, waaye est ce que est ce que du jigéen moom moo war eh, a sa koy waxatee sax góorgóorlu ba ko góor ki du gitu, tilim parce que nekk ni jigéen la ñu wax ne. waaw ba tey mais góor bu amagul jabar ana ji moo ko war a tax muy mu set. jigéen ba tey mais góor bu amagul jabar laa. loolu laa ba léegi jigéen. mais doo fekk mu set ci boppam. yaay mais yaay dëgg la mais am na fooy foo mhm. dina ci wax. dina am na am na foo mhm. mhm. xam ne boo fa tolloo yow yaay jël sa bopp en charge. xam nga nit defar la neex na mais nga mën defar sa bopp tamit dara daa ko. dara mais am na góor ñoo xam ne. Mm,

ay euh, dégagement yoo xamante ne ku ko gis dina xam ne kii nii jigéen ju fonk boppam la parce que set tamit ci fonk fonk sa bopp la bokk mhm. te suñu jigéen tamit dafa laaj ñu ngi sax macha allah ah, waaye doy na waa des fois nag xale góor yi nag dañuy clash bu baax a baax mhm. ak suñu greffage yi mhm. à chaque fois suñu ñëwee dañuy naan suñu greffage yi dafa waaw ñoom ah. wax nañ dëgg ah dafa am jigéen ñoo xamante ne faaw ñu wax ko wante ah. ñun ay jigéen lañ mais uh-huh. ñu bon ñi ñoo yàq toujours ñu baax ñi am na jigéen ñoo xam buñ la jegee seen xetu gërëfaat mar day taale buñ la jegee seen xetu pokotaan mar day taale te sama ma doon wax naan euh, jigéen dafa war uh-huh. euh, ci xaleem déjà uh-huh. buy sangu muy buy bomb ay rokkam jigéen dafa bëri ay rokk dafa bëri donc rokk yooyu faaw nga koy bomb boo ko bomb boo màggee da ngay ànd ak euh, da ngay ànd xet te xam ngeen ci li ma leen wax loolu ndax ay jigéen ngeen beneen bomb roq yeeg roqaat yi di bomb ba <laughs> baax. voilà ñu ñëw ci ummi ummi comme Adja nu mu ko waxee nañu bomb roqaat yi ah mm-hmm. Adja yow loo ca xalaat. waaw li Adja wax ni dama mm-hmm. koy parce que nit ki nee nañ depuis te loolu ci xale lay commencé ko waa des fois nga gis nit jigéen bu mag sax. wan mm-hmm. ak xet. mag ñu baax nee nañ loolu. ci bu muy nekk xale. la lay commencé quoi. si yaa ngi koy sang du ko sang normal. Mhm. da ngay ndox mu ko taanam. Mhm. fépp fu xamante ni ruupu jigéen la dafa war a jël. Mhm. fomp ko euh, je sais pas bomb ko. fomp ba mu set daal di koy xeeñal lu neex bu ko defee loolu lay màggaale jigéen noonu lañ commencé di ko yore comme ça waaye des fois nag di nga am sa yaay mu toppatoo la bu ah, baax de dëgg la sa xale la sa xale xale mm-hmm. bébé déjà bu seteere da ngay am ah da ngay gis ñëpp koy bëgg a tëye ci bébé lay commencé mais boo demee ba nga xamante ne yaay sangatu la papa sang euh, mag sangatu la yaay sang sa bopp Ya war a jël say responsabilité dafa am sama Ben papa balaa may dem ci maman <laughs> daf ma doon wax muy papa papa joxaane moom moo ma jàngal rajo daf ma doon wax naan jigéen six roq la am mm-hmm. danaa la décortiquer six roq déet waaw wuy ma mais laa jaxase loolu Adja Adja rek yow non non bul ma jaxase mbokk internet te bul ma jaxase suñu invité waaw daf ma boog benn wala ñëpp waaw benn bi mooy poq yi ñaari poqataan yi waaw ñaari poq ñaareel bi ñaareel bi waaw dañ koy dugal suñu xarit boobu nga xamante ne moom mooy moo nekk ci kër gi moo nekk ci kër gi lu fi yëngu moom ni sonal nañu maman sonal nañu man xarit boobu daf maa sonal nañu oui moom il faut mu leer. Ah, ah. Ah, yow. ah dañoo kontaan léegi kii ñoo naan ñi nekk gore. émission sama bato bii euh, laa ma sooyee laa. bato bi dama lay ñaan rek waa Sénégal nag. seen dugg ba après dinaa leen woowaat coupé leen nag am ma crédit moo coupé. <laughs> yow loo xalaat ci internet Sénégal TV. maa leen di nuyu di leen dalal jàmm ah di mm-hmm. bëggee ñi bu baax a baax waaye li ñu wax dana nekk ci ñoom gëmuñu dara ñoom ñëpp a xeeñ <laughs> instant bii fii mi ñu génn de naa leen kii wan nag ay affaire appareil fa laa yam. waaye yow maman looy conseil boobu jigéen ñi xam ne dañoo nekk ci. ah ah man instant bi damaa dégg sànq. kii ne ci suuf. ah dama dégg nga ne gune ca ba muy gune bu kii ñun ñi am na ku ci rax koo xam ne ba muy gune daaw sangu. ah est-ce que bi yow. ah si Sénégal TV xam nañ ci dara.

toog si pare bi ma ñu doon pare ma ko def. mi ngi noonu donc ñu dellu si waat ci plateau nekk ni jigéen ah ñu ngi doon waxtaanee set si jigéen yow Oumy naka la jigéen war a setee. jigéen déjà euh, setu jigéen. Mm-hmm. dama naan euh, comme ni ma ko waxee sànq ci xale bi lay bi ngay nekk xale lay door mais mm-hmm. boo demee ba màgg. Mm-hmm. lépp mu ngi dooree ci biir kër gi sa comportement ci biir kër gi boo xëyee fi nga tëdd war nga ko lal ba mu baax. ci set la boobu waaw. set la bokk. Mhm. dem sangu ba set. bu mhm. fekkente ne da ngay jàngi nga sol. Mhm. waaw correct correct. xam nga daal di xeeñ lu neex. fekk sangu nga ba set. dégg nga daal di sol sol lu rafet lu set a set a set macha allah daal di doon góoram. lu daal di doon góoram mais mooy coupeeru ndox yi. Uh-huh. ñu ne kaar yi fan yi parfum yi mu ngi gilli. parce que xale jigéen ñi sanguwuñu loolu da leen arrange. <laughs> mais nag mais man man duma daal ko ngeen koy buux xale jigéen ñi. dëgg la ah gis nga jigéen ñi. Uh-huh. macha allah fi ñu toll nii ku ci sanguwul yaa ngi yor sa parfum de classe yu baax. Oh. di ko piisoo. sangu nag gaa nag naa ma yaa ne ku ci sanguwul. ku ci sanguwul dégg naa depuis ba sedd bi duggee ba léegi commencé annoncé ba léegi. gis nañu ko daal waaw am na ku may ku may ku may kii waa cliente yi. mais bon dañuy wax rek ne. ñàkk ñàkk set góor ak jigéen koy wax parfois da dugg tataan. awa loolu bokk na ci li ma gën a métti ci àdduna tataan bi bi xat. Kalau bu góor nih ne nii pokkam pokkataanam yi ngay bëgg a dem yow ya, Mariam ya. yooyu itam war nañ ci wax vraiment dafa metti Adja maa ci may benn mën a service di parfum ku ko woo di ko def ku dugg ci kaam bi rek daal di jël parfum piis waaye da ngay wax say pokotaan ak sa may ko na amul crédit naa ko

envoyé ma Wally balaa ngay ngay déglu ma ne ko waaw léegi laa la koy envoyé. ndax dèjà mu ngay xeeñ ba pare <laughs> dama yàlla jégal. ma toll na waaw mais bii dama gën a yooyu doo xam noo koy def ndax xam naa ne comme parce que kii bi moom bu la mayee direct. ragal a tax ragal a tax moo tax balaa muy yeggali Wally mais mais am na beneen tamit. beneen. Mm-hmm. Hmm? beneen mooy ban. mooy xale yu jigéen yi nga xamante ne. Mm-hmm. bàyyi ñu ngi ñuy ray aw kumba. bàyyi am nañ xet yoo xamante ne waxuma la ñuy sew ñu toll ne man ñooñu moom duñ def dara du amuñu xet. Ah. macha allah ah, waaye yàlla loolu la ah. ñu tuuti ñu amuñu xet. mais ñi mm. mm. la ñuy def. Mm. ah baal leen ma mais bàyyi. jëloon ko fóot nga lan laay <laughs> ñu ngi ci ñu kooj la si mbedd gi di la doo man aw ma doole ummi nee eh, la eh, man aw ma doole. dëgg la dëgg la dëgg la jege na ko jéem a sori la tuuti ndax nepp lu jege mooy waral affaire bi di dindi bon solee baa muy dindi loolu dong nga koy waral nag nañ jéem a poussé la affaire dinañ yónnee benn machine boo xam ne. Hmm. day kii wala. ban ban usine nga koy laaj noonu. ah kii waaw woo ko ànd ak ànd waaw ma woo waaye dama bëgg nga woo ma ah ma woo ko daa mel ni nag damay bippee rek sànq ba tey waaye su ma sama kene di mat na de waaye li ma jaaxal fii après naa leen koy wax ci biir toj nañu yow chef personnel bi maa ko wax mais awa awa awa loolu tam wax ci comme yow tey yaa ko man gars jigéen ñi samay ah, xarit la loolu ñëpp xam nañ ko. waaw loolu loolu yëpp dëgg la. Mm. Adja mm. euh, nañu xoolaat euh, colin yeeg. Mm. nañu xoolaat nan la ñu comporter surtout ci jigéen. parce que suñu waxee set rek. jigéen la ñuy njëkk pointé du doigt balaa ñuy ñëw ci góor. Adja ba ci loolu sax ma ñëwaat ci leneen mooy lan jigéen ku nekk si néegu sayam. nga bàyyi sa jëkkër ah mu tilim. cal tudduma sax caleçon. Mm-hmm. boobu moom dama ko sax jëlale. mais su vêtement sax yow sa jëkkër di génn di tilim. Mm-hmm. ummi nañ wax ci loolu tamit. ñaaw na mm-hmm. euh, xam nga euh, kii Eva. bu ñu waxee ci set néegu sa yenn set. dëgg la parce booy dem euh, bu ñu lay mu di la yóbbu sa kër jëkkër. ñu lay wax mu ñëw. boo demee nooy def na nga toppatoo sa jëkkër. toppatoo say goro. lan war a def sa jëkkër yeneen tilimee da ngay jël. fot ba mu set waxuma la machine à laver yi ñu gaa mm-hmm. koo ci gis weebaa fii ade ah, si nay fete waaye am na ñoo xam ne boo bëggee set uh-huh. donc gis nga ku seexlu mënoo set mm-hmm. nañ ko wax am ñoo xam ne dañuy teg bu ñu siixloo mooy dañoo set mm-hmm. ku siixlu du set ku seexlu du raxas douche du raxas ndab du bale du fobeere moom parce que